ngeen da ngeen di abonné fii si ngeen mën a jot moo leen vidéo boo ko mën a xam li ndax privilège bu toll noonu euh, ñu boole ci yiw bu toll nii amul luñ koy sàggane dangay nangu ba pare soo ko xool leneen looy def kon nag jërëjëf sëñ Mansour ci privilège bi ñu may ñu bokk ci programme bu mel nii. mu mel ni kon ñun suñu waxtaan ñi ngi ko war a tënk ci te ak civisme ak gis-gisu lislaam ci yooyu mu mel ni euh, waxtaan yi nga xam ni sëñ Moussa Fall def na ko ak sëñ Makhtar kebe def daanaka lu may sof tuuti rek mën na bañ a gudd mën na bañ a dafa am benn boroom xam-xam bu tudd Pierre Clastre Pierre Clastre boobu dafa ne péncu doomu aadama yi dañoo mës góor góorlu ci niñ koy organiser niñ koy defaree ba mu nekk lu lu yëwan nee na bu njëkk dañ doon def ku ëpp doole moom mooy jiite ci penc yooyu ki ci ëpp doole mooy noot ñi ci des daan ni leen ni par force man maa leen di jiite nee na noonu lañ doon doxalee bu njëkk doole moo doon tax ngay jiite nee na dañ dem ba jëmm jamono ñu xam ni ci am doole bu nootee nit yi tamit dina dem ba doole jooju commencé dem bu ko defee kon mu ni kon doole saxul nañu wut beneen pexe nee na boobu la doomu aadama yi commencé bàyyi di nootee ñeneen ñi ci doole commencé nag di ko teg ci ay ruse maanaam di tubaab di wax li wolof di wax pexe naka la ñuy def ba nax nit ñi ba man li ma bëgg ñu fekk ma ca te fekk ne lépp ci nax laa ko teg ginnaaw léegi doole doxatul ñu ni kon nañ ko remplacer ak naxe kon ki kiy jiite mooy ki gën a mën a naxe ginnaaw bi ñu bàyyee doole mu ni naxe boobu tamit dañu dem ba nga xam ni dañu gis ni mënatul wéy ndax ki nga nax tey jii suba mën naa am mu yeewu ba nga xam ni sa nax boobu dootul mën a continuer ñu ni léegi kon nañu wàcc loolu léegi nañu seet ay idéologie idéologie yi euh, sëñ Moussa Fall wax na ci sànq yu mel ni ay libéralisme yu mel ni ay socialisme yu mel ni ay léninisme lu mel ni ay marxisme ñu ni nañu xool idéologie yooyu ñu jëm koo doxalee pénc yi mais idéologie yooyu yëpp tamit biñ ko biñ ko jéemee dañu dem ba ñu am ay jafe-jafe ba nga xam ne ñoom réew tubaab yi dañu ni léegi daal nañu bàyyi lépp nañu fexe ba nit ki lu ko neex na ko def loolu moom mooy anarchiste yi ñoom dañu ni bu ñu defati benn idéologie bu ñu jéemati pexe bu ñu jéemati naxaate bu ñu jéemati doole nañu bàyyi nit ñi ku nekk lu la neex na nga ko def gréviste français yi 1968 nga xam ni anarchiste yi dañ leen a influencé dañ doon way ne article 1 tere nañu ko tere maanaam bu teree amati nit ki lu ko neex la def tere nañu ko tere léegi ñu ne article 2 loolu ñu wax léegi tere nañ ko maanaam comme ñoom nee nañu tere nañ ko tere ñoomit dañoo war a tere seen tere maanaam ñun suñu tere bii tere nañ ko maam li ñu bëggoon a wax rek mooy bu benn tere amati nit ki nañ ko may mu def lu ko neex boo ko dee xool dafa mel ni ni jamono di demee ni àdduna bi demee dafa mel ni ñuy jublu ci loola waaw maanaam tere tere nga xam ni lu nekk loo xam ni xel musu ko woon a xalaat sax doomu aadama mi ngi mel ni luy jublu ci loola jamono jooju nga xam ni ñoom tubaab yi indi nañu ay système te dem nañu ba xam ni système yooyu mënatul dox dafa am ñenn ci ñoom ñu leen wax attention il faut ñu xoolaat suñu bopp loolu tamit dañ koy bañ a yenn saay di fësal trop mais lu am la ku mel ni André Malraux dafa ni bu ñu demee ba vingt et unième siècle dinañu dell ci diine wala ñu torox loolu duñ ko fësal bu baax ci nit te kooku nekkoon na ministre de la culture foofu ca France nee na bu ñu demee ba vingt et unième siècle bu ñu delluwul ci diine dinañu torox ñu ni waa mais diine boobu naka lay demee ma bëggoon fi indi ñetti ñetti firnde rek bu njëkk mooy ñi njëkk a ñi ñu njëkk a jàpp ni dem nañu ba ca weer wa teg fa seen tànk Yuri Gagarin la moom russe la ak am Armstrong moom américain la Neil Armstrong boobu bi mu demee ci weer wi ba dellusi dafa ñaan congé ni dafa bëgg a dem Égypte visité ji Égypte bi mu demee Égypte daal di fay dégg nodd bi mu déggee nodd bi mu ni lii laa déggoon ca weer wa maanaam ba ma demee ba ca weer wa lii ñuy nodd nii Égypte loolu laa déggoon ci weer ñoo ñi nga xam ne ñoo ko fa yabaloon daal ni kii xel mi daa commencé dem nañ ko jël xool nuñ ko faje ndax wératu muy benn ki ci topp moom mooy ku ñuy wax Roger Garaudy Roger Garaudy boobu dafa nekkoon koo xam ni dafa commencé woon di ànd ak communiste yi communiste yi ñoom mooy marxiste yi nga xam ni dañoo gëm ni bu ñu bëggee doxalee suñu àdduna ci jàmm nañu jël yàlla teg ko fële te doxalee ko suñuy xelu bopp dafa nekkoon ci ñoom ba nekk ci kilifa sori ci lool yàlla def ba jimmi jamono mu gis ni yoon wii du yoon bi gën du yoon wu baax mu daal di koy wàcc dem ànd ak libéraux yi dem sax ba nekk extreme droite Roger Garaudy boobu mi ngi faatu 2012 mi ngi juddu 1913 euh, mi ngi faatu 2012 moom Roger Garaudy boobu dafa mujj ni man daal nekk ne lii ma gëm yëpp ay tappale la dem naa ci communiste yi dem naa ci capitaliste yi dem naa ci libéraux yi dem naa ci extrême droite loolu yëpp ay tappale la dafa mel ni yàlla dafa maa dimbali ma gis yoon wu bees yoon woowu mooy yoonu l'islam bi mu ko xamee mu daal di tuub nekk jullit ci la faatu ki ci des mooy Maurice Bucaille Maurice Bucaille boobu moom dafa nekkoon cardiologue dafa nekkoon koo xam ni ci France ku ku kilifa bu mag la ci mbirum faj ba pare xelam màcc ci xolu doomu aadama maanaam euh, da doon opérer ay xol mais moom li muy opérer ay xol dafa gis ne bis bu saa yu opérer jullit xol ba dafay dal su opérer keneen ku dul jullit xol bi day yëngatu lool mu ni lii am na lu ci ne moom ci boppam mu daal di jóge France daal di dem Arabie Saoudite def fa ay at jàng arab jàng alxuraan daal di mujj tuub nekk jullit mais biñ nekk boo leen laajee ñoom ñëpp lu tax ngeen jóge ci lii dem ci lële dañoo gis ni nekk ne yoon wi nga xam ni mooy yoon bi gën a jub pour que nit ki mën a defaru fii defaru fële moom mooy yoonu lislaam donc bu fekkee ni dañoo bëgg a defar civisme bëgg a defar de faw ñu am diine faw ñu dellu ci lislaam te je crois que Seydi Hadj Malick Sy lim ñu jàngal ci nit ki yiw yi mu war a am ci nit ki rafetal bi mu war a rafetal euh, ci digganteem ak nit yi ni muy dundal loolu yëpp mu yar ñu ci jaaju ñi ci ñu xool euh, sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh discours bi mu def bi président Lamine Gueye génnee àdduna muy discours boo xam ni dafa delloowaat nit ñëpp ci diine wax ni kii bu fekkee ne alal rek lañuy wut moom amoon na alal ba mu mat sëkk bu fekkoon ni cëru àdduna rek la ñuy wut am na cër boobu ba mu mët sëkk waaye tey jii mi ngi nii ñu koy denc di ko suul perkaal rek lañ ko dencee te mënalul boppam dara dañ koy takk dugal ko ci suuf kon li ëpp solo mooy ñu fàttaliku bàmmeel loolu sëñ Abdou Aziz Dabakh jàngal nañu ko te je crois que ki nga xam ne mi ngi fàttaliku bàmmeel jamono ju ne dina xool taxawaayam ci àdduna bés bu ne yàlla dafa def ma dem aji ji màkka ak maam Alpha toog ci sama li ñu nekk màkka yëpp di def suñu ay activité moom sama saak moo ko doon téye mujj gi sax damay bu ma jógee rek dama naan ko sëñ bi saak baa ngi nii mu daal di téye maanaam lu kéemaane loo xam ni ba li ñuy aj ba aj bi jeex yépp ba ba ñuy dem ay aéroport di jël avion di ñibbisi sama saak fu ñu toll fu ñu toog moom moo ko téye moom maam maam maam Alpha toog sama loolu li muy indi rek mooy lii sëñ euh, Makhtar Kébé doon wax léegi moom mooy delloo sa bopp ci yàlla te xam ni ndomba tànk bi ëpp solo rek mooy ndomba tànk bi ñu yàlla takkal donc ñun ñu war a góorgóorlu ci loolu xam ni ñoom tubaab yi ci seen bopp ñoom ñoo dem ba ni amatuñu yoon Paul Valéry moo ko wax nous autres civilisations sa savons maintenant que nous sommes mortels maanaam ñun tubaab yi ñun ñoo jàppoon ni ñun ñooy civilisation ñun ñoo jàppoon ni ñun ñoo am pexe ñun ñoo jàppoon ni ñun ñoo am xam-xam ñun ñoo am am am léegi dem nañu ba ñaawteef yi nga xam ne mala yi duñ ko def sax ñun ñoo ngi koy def léegi ñun dugg nañ ci guuta xamatuñu fu ñu jëm léegi nañu wuti pexe pexe boobu ñu ni leen dellu leen ci diine delloo leen seen bopp ci yàlla delloo leen bopp ci seen bopp ci diine lislaam ñenn ñi ci ñoom nag ñi nga xam ni seen xam-xam euh, seen i gëstu jëmale na leen ci diine dem nañu ba ci ñoom ci seen mbokku tubaab yooyu ni leen ñun lii ñu nekk yëpp ay tappale la euh, sëñ Moussa Fall wax na fi léegi crise financière bi nga xam ni dans les années 2007 crise financière bu doy waar moo amoon ci àdduna bi banque yu bëri yu nga xam ni ñi ngi nekkoon ay États-Unis nekk Allemagne nekk France banque yu bëri dañu commencé woon am problème bay tëj mais jamono jooju nga xam ni Europe mi ngi am crise financière ñoom seen banques yi doon appliquer finance islamique ñooñu amuñu benn problème ba léegi léegi ñu ni kon nañu jéem a jël finance islamique boobu di ko doxal waaye nag buñ ko tuddee finance islamique nañ ko tuddee finance éthique ñoom islamique bi moom moo leen ci xaw a xaw a waaw nee na buñ ko tuddee islamique nañu dindi islamique bi tuddee ko finance éthique waaye foo leen déggee ñu wax finance éthique rek mooy ñu ngi dellu ci finance islamique maanaam li lislaam tërale ni moom la ñu war a doxalee koom-koom ci loolu la ñu tënk seen bopp waaw nga xam ni du am riba parce que riba yi justement moom moo leen loon ba seen banque yooyu daal di tëj kon mu mel ni euh, am nañu loo xam ni lu am solo la ci suñu penc yi am nañu lu am solo loo xam ni suñu mag yi def nañ ko fi bàyyi ko fi bind ko fi rëdd ko fi ñun nag ñ di ko sàgganee sëñ Abdou Aziz Sy Al Amin dafay wax nit ki sax dafa war a moytu lu ñu terewul te jekkadi lu ñu terewul te jekkadi maanaam terewuñ ko waaye jekkul ma moytu ko waaw jekkul waaw tubaarkal la tubaarkal la lu ñu terewul te jekkadi Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum rabiyallahu taala anhu nee na tumranke ma ngay tàmbali ca nit bi bu xeemee boppam xeeb sa bopp nag mooy nga yor luy rëy yor lu am solo yor lu baax yor luy defar fii defar fële nga wàcc ko fa topp ay tappale te jamono ja ngay topp tappale ba ña nekk ca tappale jooju ñoom ci seen bopp nee na ñu li ñu nekk tappale la baaxul nañu wut beneen pexe te ñi yàlla dimbali ci ñoom pexe bi ñu gis mooy dellu ci doon diine l'islam mooy li ma leen li ma léegi ku mel ni Maurice Bikaay ku ñëpp xam ku mel ni Roger garodi ku ñëpp xam ñoom ñëpp bi ñu demee ba gis yoonu lislaam dañoo ni dëgg dëgg ñun dañoo nekkoon ci réer yoon wii mooy yoon wi matale moom moo ñuy defar fii moom moo ñuy defar fële kon mu mel ni bu ñu bëggee defar suñu pénc am citoyenneté dëgg am civisme dëgg pénc bi ñu jox ko cër ba mu war a am ni euh, sëñ Maxtaar Kebe doon wax léegi du ma tuur mbalit ci mbedd mi du ma wax wax ju ñaaw duma def lu ñaaw du ma wax naka su dul noonu du ma tappale du ma nax sama morom loolu yëpp dafa tënku ci dellu ci diine l'islam te loolu encore une fois mooy li nga xam ni lu am solo la lu ñu jot te mag ñi jotali ñu ko tey jii nag bari na ci ñoo xam ni ñu ngi joxoñ mag ñi euh, di leen tegal ay tuuma di wan ni yoon woowu njaar ay yoonu bidaa la fekk ne dëgg dëgg nag loolu moom mooy yoon wi nga xam ne bëgg nañ war nañ cee mën a jaar bu fekkee dañoo bëgg a defarlu defarlu bu sax tey jii dañuy wax foofu laay terminer